La ilaha illallah La ilaha illallah jerejeuf mbokki julli di mbokki talibé bu ko defee ñu wéyal liggéey bi rek euh, dem suba légui ñi ngi ci liggéey bi nga xamné ci cheikh Cheikh al muntaha Mbacké jox nako Serigne Amdi Modou Mbenda di yassal fi nga xamné ci moy armée li baqiya ya di Touba mbooleem njabootu Sëñ Tuubaa gi Cheikh Ibrahima Fall gépp rek teew fi di jëfee ndigal li waaye ba tey ñu ngi woy liggéey bi ñu ngi taxaw ak sunu jëwrin sunu sëriñ sunu lépp di sëriñ Abdoulahi Ndaw bokk si njabootu Baye Cheikh Ndaw di sunu kilifa di sunu lépp sëriñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la mu mel ne tey liggéey bi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha jox na ko Baye Fall yi bii mooy ñetteelu ajjuma boo xam ne si ci biir nawet bi dañu ñëw di yeesal armeel yi Tuubaa di bàq mu teel tey fii nag ñi fi tëdd tey lii mooy kërug dëggu gi kër gii nga xam ne si tey mbooleem lu waay di liggéey yaakaar naa ne jagal kër gi moo ëpp doole jagal geneen këruk àdduna tey nag suñuy ku fi amul li a Diaw wax rek ku fi amul nijaay am nga fi baay am nga fi maam tey mbooleem ñoo xam ne si dem nañ tey seenu yaafus yóbbu leen waaye seenu njàmbaar ñun bayuñu fi sëriñ bi santaane ñëw fi yeesal bàq ya lan ngay wax ci loolu ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la jërëjëf sëñ Massaer ñoo ngi lay nuyu baax di leen siyaara di siyaar mboolem euh, kuy topp Lamp Fall leeral Touba di di la siyaar bu baax a baax ci taxawaay bi ak yitte ji ak euh, bis waxtu wu ne ñu ngi leen di gis ci liggéeyub maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridina di siyaar sëñ Ibrahima Diaw Baye Fall euh, di leen ñaanal bu baax a baax comme ni ngeen ko waxee rek tey jii di ajuma depuis le premier janvier 2024 ñu ñëwaat fii nga xam ne mooy baax ya waaye du ñu sori te ñaanu ñaanuluñ ñi nga xam ne ñoo fi tëdd. suñ borom dool li seeni ngërëm ak seen i njëgal. waaye fal suuf ci seen kaw te xaari leen ci àjjanay Firdawsi barkeb Serigne Touba. Euh, comme ni nga ko waxee rek fii moom ku fi ñëw. sa war na di xalaat. ne fii ngay mujj. yaa ngi maa la dégg léegi ngay wax ne lu nit ñëpp fi lañ jëm si. Euh, euh, dafa am benn kilifa gu ma dégg mu ne ma mu ne bala ngaa tabax dangay tëppax. Telo lu fi tabax rafet rafet dinañ ci génne borom yab ci mpax mm-hmm. kon bala ngaa tabax da ngay tëpax mm-hmm. fii nag mom lu dara ju am mm-hmm. euh, tey jii xàmmiwoo kenn euh, tey jii njéggaluk borom rek la ñuy kon nit ku nekk war ngaa bàyyi xel ndax fii li ma ko waxee ku fi amul am nga fi rak wala am nga fi mag wala am nga fi nijaay kon fii ñëpp la war ngir ñu ñëw ko comme ni jotee ndigal li nag ci sëñ Muntaxa Mbàkke ndaka jekk ndigal li daan jóge ci ndax dañoo wax ne drapeau càng gi ak njaam gi Cheikh Fall dafa waxoon ne mm. jël leen càng gi jox waa kër Sëñ Bamba te tee njaam gi bu ngeen ko defee kat di dem ba njaam gi gënal leen càng gi daal di wax ne kër Sëñ Touba dafa am bañ Cheikh Abdou a mm-hmm. dafa am bañ mm-hmm. mm-hmm. ba delluwaat te jëfewu ko ku ko def lekk nga sam bañ waaye sëñ ma seer yaakaar naa ki war a joxe ndigal mi ngi joxe ndigal waaye ki war a jëfe ndigal it ngi jëfe ndigal loolu nag moo waral maam Cheikh Fall ba fi jógee ba léegi liggéey bi day gën a yokk ki ko njëkk a wut di Cheikh Moussa Fall bi mu fi nekkee tamit liggéey bi day gën a di gën a yokku ba ni Serigne di ñaan suñ borom dool li ko yàggal lool te wéral ko moom it liggéey bi àggal ko foo xamante ni fa ko maamam yu baax ya ak magam yu baax ya àggal damay wax nag ne toujours ne Serigne Amdi Fall Modou Mbenda soppiwut waaye day sof lépp lu fi magam yu baax ya bàyyi woon ak bàyyam yu baax ya bi mu ñëwee da koo yokk ba nit ñëpp gis ko xam ngeen ne liggéey Maam Sera Fall eh, léegi yokku na yokk koy boo xamante képp ko xamante ne yaa ngi ci yoon wi rek di nga ko gis waaye tamit ñu bàyyi xel bu baax a baax ne euh, ñun amuñu lu dul ndigal mm. euh, ndigal saa yu saa saa yuñ ko déggee dañoo war a dañoo maam war a fabu ndax Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina kat wax na am na bis boo xamante ni Serigne Touba euh, santaane na ab liggéey boo xam ne moom bi mu jugee yëg ne liggéey boobu Serigne Touba santaane na ko moom ci fajar gi la jug dem defi ko. bi mu génnee ba defi ko ba ñëw ba dajeeg ñi ko ñi Serigne bi digaloon loolu. bi mu leen laajee dañ ne ko ñun kat Fall li tax ñu xawoon naa yee mooy dafa am gaynde a ba gaynde gi jàll mu ne man day gaynde Serigne Bamba rek ngaa wuti ma fekk jëfe ma ko du ma am jàmm te daan na wax naan yoon wii di yoonu Baye Fall kun ci woo nga wuyu ñu liggéey loo la nga liggéey ñu tere la nga bàyyi ñu laaj la nga joxe tàbbi nga ci mbaax te mbaax googu bon ne ko ci wàlla kon ba àddunay tukki Cheikh Ibrahima Fall Babul diina ci la Serigne Touba Cheikh Bamba Khadim Rasoul bëgg ci loolu rek lay nekk moom jumtukaayu Serigne bi la moom dafa wax ne sax ba may jur sama doom yi doomi Serigne Bamba yee tax loolu nag pas la pas-pas boo xamante ni tey ji kenn tollul foofu ci ci eh, ci Serigne Touba bëgg ko bëggee tax na jëmmam ji saa saa yu ko sëñ bi mosaan wax waxal loo bëgg ma defal loo ko danaan ko xanaa di la gën a bëgg. wëlbatil ma sama mbari bët ba du gis lu dul yow. kon loolu bëgg la te nit ki boo ko bëgg doo mën jariñu ci moom. bis bu ne nag ngay gis lu nekk di xew ci jamono waaye waa kër Cheikh Ibrahima Fall moom mucc nañ ci loolu ndax ñoom kat ah, bis bu nekk ñi ngi xaar. lu jógee kër Sëñ Tuubaa ban jëfe ko ni mu ko ni mu ko bëggee gis nga fii bañ ko bàyyee ak léegi yàggul lool lool waaye mel na ne am na lu fi desaat loo xam ne faaw rek mooy euh, euh, dañ wax naan Sëñ Tuubaa bu masaan di xewloo dara sax mm-hmm. danaan dañ ko wutal li ñoro ci toolu Cheikh Rafal mm-hmm. kon moom liggéey loxob Cheikh Rafal liggéeyub Cheikh Rafal moom la gën a tàmm loolu laa la bëggoon a laaj mu mel na ne euh, bu ñu xool ci ajjuma ji kam ni ma la ko xool rek tey la ñetteelu ajjuma yoo xam ne si ñu ngi yeesal armeel yi sa heure bu jógee di ko def rek njabootu Cheikh Ibrahima Fall la koy jox mm-hmm. maanaam ku ne ngi fi nag waaye Cheikh Ibrahima Fall rek lay tànn jox ko liggéey bi sa mbooleem njabootu Cheikh Ibrahima Fall waa kër sëñ Fallou Fall waa kër mbooleem buntu kër Cheikh Ibrahima Fall rek ñii biir liggéey bi nga xam ne si Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké jox na ko sëñ Amdi Modou Mbène lan mooy secret bi secret bi mooy dafa wax ne mm. euh, damaa wane woon damaa damaa wane woon nii la ba ñëpp ne xam ne nii la mm. su ma demee ba gis dawkat bu ci bokkute dinaa ko woon daka la ndaka jekk Cheikh Fall moo ma sa wane yoon ndaka jekk Cheikh Fall fuñ ma saane tudd Sëñ Tuubaa Cheikh Fall tudd ba ci photom bii foo gisee photob Sëñ foto photob Cheikh Fall jëlu ngay laaj kee la waaye foto boo ko dendalee boo yàggee wër ñu ne la kii kan la kon loolu lu jar bàyyi xel la dafa wax ne bi mu ñëwee jamono damaa fekk mbindeef yi mar lool ci yàlla sëñ ba di am dox di ndox mu teey mu neex a jëfandikoo waaye dafa nekk suufu janj ma ne mbindee ndox mi ci suufu janj bi na leen ko duppi nee ñu gàntal li may wax nag maa ko jëlee ci Baye Moussa Seck nee na ñu gàntal nee man ak samay jumtukaay man ak samay jumtukaay ba na duppeen nee ndox ma ne bawu génn ma jël sama tànk bi tëj ko buntu ba daan ne képp ku jariñu Sëñ Tuubaa li jot a baawaan génn ci nga jariñu ah. waaye buntu a a ba moom man Ibra Fall maa teg sama hmm. a liggéeyale ko noo xam ne ku ci dool leen da cee yàqu doo ci jëriñoo <laughs> kon moom rek moo liggéey sëriñ Tuubaa moom mu mel ne euh, ne sëriñ euh, Abdoulahi Ndaw waaye kam niñ ko waxee rek Cheikh Ibra Fall la jox liggéey bi waaye mboolem bu ñu joxee Cheikh Ibra Fall liggéey bi doo ci xàmmee kuy Baay Fall wala ku di di Baay Fall mboolem koo xam ne yaa ngi ci yoon wi rek sa njaboot daf ci teew ndax bëgg Cheikh Ibra Fall am na ñoo xam ne kam la sëriñ Ousmane sama yëkk yaa ngi ci gétti gaa yi bëngeenu yëkk yooyu nag mooy ñi nga xamante nii mm. ak baay Fall moom képp ku jébbalu mm. ab Baye Fall nga képp ku képp kuy jox sab sëriñ addiya mm. ab Baye Fall nga ndax Cheikh Ibrahima Fall baabu murid mooy Baye Fall bu mag bi te daan na wax naan murid murid Ibra Fall te murid murid Sadix mooy Baye Fall kon képp koo xamante ni jébbalu nga sab sëriñ di wóyoo feneen fu mën a doon Baye Fallu foofa nga doon kon Cheikh Ibrahima Fall maanaam da maam dafa waxoon ne yoon wi ku ci sëyun njaaloo ci loolu nag moo waral tey jii léegi képp koo gis rek da déggoo ma ne la njaam gi léegi bëri na bëri na ay candidat te dafa wax ne jëleen càng gi jox kër sëñ Bamba mm. te tey njaam gi njaam gi nag mooy ak taalibe njaam gi mooy ñu moom la njaam gi mooy ñu di la yërif di la digal di la nga ngay def sa xel nga orienté ko jëmale ko ci kenn mm. dootoo amati xalaat dafa wax ne sëñ Tuubaa dinaa la jébbal sama lépp ba mu ñaar muy sama ngor ak sama jom sama ngor nag mooy waral lépp luñ déggee man ak yow dana dana ko def lu neex neexit dana xamne yow jom ji nak moy lu metti metti metti metti metti duma daw jeuf Serigne abdullahi Ndaw mu melne tay kaddu yoy mu yëkkati fi amna solo lol waye gis nga tay li nga wax legi rek euh, mbollem jabotou Cheikh Ibrahima fallagi fi waye mbollem buntu keur yoon waangi fi euh, amut euh, xaj amut seen li nga xamne si tay Cheikh Mamadou Al Mountakha Mbacké yi santaane na ko talibé yëpp ci boo amee kàddu soññee yoo xam ne si yaa ngi koy jox ñun taalibe yi hmm. lan lay doon sëriñ bi mooy euh, woote wolof dafa wax ne ab wootekat hmm. kay wujju mooy ku koy bégal hmm. waaye ab teen itam ko yor baaga ciy duyee tey sëriñ bi woote na am na lum ñu làqal ci woote bi loolu nag bala ñu koo xam muy ëllëg ñun saa yu ñu liggéey sëriñ bi rek nañ jàpp ne sëriñ bi moom xam na li ñu li ñu warloo ci liggéey bobu te ëlëk sëriñ bi danañu ko fay kon li jara baye xel mom ñi ngi ziar ba sëriñ ibrahima euh ni nga koy waxee sëñ Ibrahima jambar mom di léral lu bëré bëri ci yoon wi di yaatal tamit lu bëré bëri na bërëb yo xamanteni xeyna mom mi mom mo fay dem difa fa ngir man ko léral nit ñi mom mi dafa bokku ci liggéey bi te liggéey bi mi def légui yaatu na ci jamono ju bu ñëpp légui xam ko sëriñ Ibrahima xamna mom lañuy baye kàddu waye nak comme ni nga ko waxee rek mbooleem jabut gi yëpp wuy si nañ mbooleem taalib yëpp wuy cheikh si mam nañ É Fall Euh, ca Ndar ba ca euh, euh, Gébu Faal ba fu mën a doon ba Cees ñoom ñëpp tey seenu njaboot tey ñëw nañ mhm. ku ci nekk tey sax njaboot ñëw na wuy si woote sëñ Amdi Faal Moodu na boobu mhm. kon loolu mooy yoon wi yoon u Baay Faal mooy li ma la wax nii yoonu Baay Faal Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina moo ko sanc moom mi ko samp maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina yoon wi nga xamante ni mooy yoonu jaayante mhm. yoon wu yoon wu yoon wu naqaree yoon wu naqaree maanaam naafiq du ko doon naafiq mën naa def lu ne waaye mënut ta jaayante jaayante mënut a joxe alalam kon loolu lañ war a bàyyi xel bu baax a baax tey sant bu baax mboolem ñi nga xamante ni teew nañ ci liggéey bi yoon wi moom du jeex dafa wax ne wàcc biir bàmmeel laa ci xam waaye di kondam kondam ci suuf naan wàcc naa moom Iba kon wàcc ñun suñu wàcc mooy bis bu ñu defee ci biir bàmmeel te daana wax naan jàmbaar dëgg day dugg ca waar dem ca jàmm la la ilaha